Ndeye Malle. waaw Paa na nga def. naay. <laughs> Ndeye Ma Ndeye Malle amal kersa. <laughs> oustaz toog docteur toog ngay <laughs> maa ngi jégalu waaye ku ne xam na Pape Cheikh. damay jaxase ah dama lay tëggee alors euh, Mado euh, tey euh, da nga déggee ni dañuy waxtaanee Tusngal Tusngal defe naa am na lu ci ustaas xam. Mhm. waaye itam am na lu ci docteur xam ndax mag ñi yàgg nañoo yàgg nañoo Tusngalu. waaw ñun bi biñ nekkee xale dañu daan Tusngal. Mhm. ndax loolu moo daan aar sa gët yi. Mhm. waaw yenn xeet yu yu feebar yu euh, bët yu bëri daawoo ko am. Ah. waaye man man sama maam fàngukaan yi daf ñu daan tusugal ca kokki. d'accord d'accord et puis et puis même bu euh, euh, tam xarit ñëwaan par exemple. daan nañu def tusugal dañu doon wax ni. Mhm. c'est pour nga gis yonent yi. Mhm. ñu doon naxee xaw ma. ndax ndax ndax tusugal Seydina Mouhamed mi gën lu yàlla. sallallahu alayhi wa sallam moom ci gi mu baax moom bi muy judd dañu tusugal bët ya. Hmm. Ah. waaw kon dafa ñëw rek ñu tusugal ko ak xalu ay nañu waaw dañu tusugal ñaari bët yi judd moom Seydina Mouhamed. leen di damay tus nga lu waaw. waaw def ko fii. non benn saag bu ndaw. la ko daan ne mooy seetu ak peñe ak tusngal ah. waaw danaam jékki-jékki ubbi ko daal di génn tusungal yi defaraat Seydina Aysa Seydatuna Aysa ne ko jaru ko mm. yow boo tusungal sax da nga rafet yow parce que dégg naa dafa bëggoon boppam waaw neex waaw dégg naa dafa rafetoon waaw waaw macha allah waaw waaw waaw saxaaba yi bu ñu bëggaan parfum dañuy bàyyi ba Seydina Muhammad ñaq ñu jël morso fomp ci ñaq ga ci ñaqam jël morso boobu def ci bërigo ndox yëngal ko ku ne indi sa gurtu ñu duyal la boo sangoo sañ si raayoo ah. wa riixuhu laysa riixul miski yusbixuhu ka annama fiddatul unqu li dil xudumi lu yàlla bind moo ci dàq moom kon ay Givenchy ak ay Dior ak yooyu yëpp duñu parfum xeetu Sayyidina Muhammad ah, ay Chanel ak yooyu yëpp duñu ah, parfum dégg nga sa maam dafa ni wa riixuhu xeetu Sayyidina Muhammad laysa riixul miski parce que nit xetu gët amul benn xetu parfum. bu mel ni xetu Seydina Mouhamed. ah waaw waaw xet dem bu bu ñëw ba ñëw weex tal. waaw ba ñaa gën a weex ba ñaa gën a leer lamp mbaf. moo gën a weex perkaal suy wax ak yow nag doo bëgg mu bàyyi. ndax buy wax ak yow diggante sàkkar yàlla ba leer a cay génn ah. isa takallama xaraju nuurun moom ngay toppandoo moo tax moo tax saa yoo xëyee sañse defar ba mu baax a xale yi wax nga xam nga benn dama dajeeg benn waay bërki dee mu ne baal ma àq de dama saa yoo génn teel ma ne kii dafa bëri tiitar man ko bëril ma tiitar ki may ah. ne bëgg kuy seetaan ba yem ci man nga taxaw ah. ndax dolli ko bëgg ma ne ko télévision Futurs Médias bi ma ci commencé ak léegi ñi ma xam rek du dara wax ma ko pour dara ma ne ko ñi ma xam rek tuubal naa ci ñoo xam ni man la ñu ma ne ko loolu ma ni ko euh, ki ngay waxtaane mooy Seydina Mohamed mm-hmm. il faut nga am looy dégager mm-hmm. ci ci ci ci rasulullah yi mm-hmm. pour mën a convaincre nit ki jàngalekat yi sax am na noo xam pédagogie boo ko amul doo mën a convaincre ki ngay jàngal ma ne ko moo tax ñun ki ki ñuy waxtaane pour nit bëgg nga bëgg sa bopp nag dama dama dem seeti euh, Cheikh Alassane Sène xam naa xam nga ko muy ku baax euh, di suñu sëriñ di suñu xarit euh, di ñu di ñu jàppale ci lu bëri bëgg Seydina Mohamed moo ñëwee këram da ngay gis setam ak xëy na neex boo ko ne naan yow de da ngaa bëgg sa bopp mu ne la yonent bu tedd bi rek. moo gën a civilisé ñëpp. wallaahi moo gën a set ñëpp. moom Seydina la neexee la yàlla bindee. yaa taaru yaa a tout euh, bëgg sa bopp la bokk. waaw ne lu mu def sunna moom lu mu def sunna la kon da jàpp ne yor seetu peñowu sunna la euh, sama papa daf ma daan wax ne ma euh. Euh, gor waruñu ko yëgal xew mu wàññeeku dem këram waaw dégg nga lii waay waaw wax ji neex na waay. Ah. <laughs> waaye soxna Thiam lii neex na waay ah. waaye lii neex na waay ah. yeneen tuuti alors euh, Mbado pour revenir un peu ci li ngay waxtaanee mm-hmm. mooy Tuusngal. exact mm. donc comme ni nga ko waxee Pape Cheikh rek xanaa man fi mu nii dañuy àndandoo rek dem parce que dafa mel ñoom ñaar wax nañ lépp waaye ki nga xamante ne moom moo gën a dëggal lépp. Mm. moom moo di soxna Fatou Bintou moom lañ demoon seeti mu wax ñu bu baax nag lan mooy euh, origine Tuusngal ngal nañu àndandoo xool Pape Cheikh. yaa Seyda Seyda. jamono yi yonenti Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ba léegi mu ngi ak bayreem tusngal góor jigéen mag ndaw ñépp ko yittewoo rawatina bi àddis yi xamle ni moom gën gi mbindeef daan na ko jëfandikoo. dafa bokkoon ci outil yi nga xam ne yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka jëfandikoo ndax moom la doon def ci suufu bëtam. ak ci kaw mbar mi nii di ko def mu jekk lool macha allah ci ay xadis yu wóor xeer boobu nag ñoom dañ ko doon jël am na ci nag yu gën a original yoo xam ne soo demee tey màkkatal mukarama si ñuy jaay parfum dinañ nga wax ne lii mooy tus nga lu yonent bi boobu sax dafa mel ni bant nga xam ne boo ko dëbbee nag ci lay génne poudre bi nee nañ boobu nag day faj bët day indi itam leeraayu bët day indi itam setaayu bët da tax na mag ñi sallallahu alayhi wa sallam comme am na yoo xam ne yu bëri yomb fi woon ba nga xam ne dañ ne moom lu mu néew néew néew loo ko ñàkk di ñàkk di benn yoon moom ci at na nga ko def muy bésu Ashura yomb na yomb koo xam ne léegi ñëpp mun nañ koy def bés bu nekk su su rawatina ñi nga xam ne dañu bëgg di def lu original ci seen kanam ndax taaral sa kanam dafa bokk ci sunna tusnil bëri façon donju wala pëndëx wala sax crayon bokk na ci li muy fànk cat ba noppi di leeral bët am na benn boo xam ne mooy piir bi bi nga xam ne mooy boobu moom euh, waa août yi ñoo koy liggéey dafa cher nag bokkul ak tusngal yi nga xam ne en général moom la ñuy exporté. xam nga li ma la wax rek nee nañ fukk ñaar yi ñu bëgg ci affaire cat al fitra bi nga xam ne bëgg nañu jullit bu nekk di ko def tous les quarante jours wala bés bu nekk sangu ci la bokk am nee nañ bés itam xarit na nga sangu na nga dagg say wee na nga leel miskin na nga tusngalu yooyu ñuy lim ba muy fukk ñaar ak lixlaas yi ñuy jàng ci loolu mag ñu baax ñi diggale ko fii ko bind ko. yu loolu nag bokk na ci li nga xam ne li yonent bi doon def yëpp ñoom dañ ko jël dugal ko ci biir tusngal nag yàgg na fi diggante Màkk ak Medina nee nañu fa la cosaanoo am na benn dëkk bu ñuy wax Kaxla foofu montagne boobu fa la cosaanu tusngal nekk fii ci Sénégal am nañu ko fonk loolu waaye li ñu koy ëpp di ko jëfandikoo moo di tam xarit lu ci mën a am li muy def ci bët dina yokk taaru xar kanam yaa Seyda day taar gi ci moom tubarkàlla boo ko eh, seetaanee rek kontaan ba noppi itam moom it mu bëgg lool eh, yonent bu tedd bi eh, moom itam xam naa bu sañoon saa yu na ñu ngi koy ziar bu baax te wax na lu ñu xamul woon daanaka ci tusngal exactement Pape Cheikh wax na ci lu bare loo xamante ne xamuñu ko woon te sànq sax waxoon nga ko la plupart dañ ko doon jëfandikoo ci bés boo xamante ne moom moo di bésu Tamxarit mhm. waaye moom bu ñu toogee waxtaan ak moom xamal nañu ni que nit saa su sax war na ko mun di ko jëfandikoo parce que dañuy il faut ñu xam ni que doon jëkk jëkk jëfandikoo moom moo doon pharaon yi mhm. tax ñu ko doon jëfandikoo nag pour yokk déjà seen mhm. taaru bët tubaar fakkaar la parce que boo ko doon defee da ngay am benn taar boo xamante ne macha allah ci sa bët ba ku xool il faut mu xoolaat la ndax taar bi nar a nekk ci sa bët yi mhm. bi ñu demee ba ci biir nag ñu gis ni que dafa am ay njëriñ njëriñ yoo xamante ne nag day faj li nga xamante ne maanaam moom moo di bët képp koo xamante ne comme foofu tàngu njëkkee da nga doon xam ne dafa doon tàng bu baax a baax te naaj bi da leen doon sonal li leen doon permettre nag ñuy protéger li nga xamante ne moo doon seen bët ak naaj naaj bi dañ doon jël tusngal boobu di ko jëfandikoo ñu demaat ba ci biir maanaam mun nañ wax antiseptique la ci mbiru bët ñu demaat ba ci biir aussi gis ni que Euh, taar boobu macha allah li ma ci doon wax mais ñu demaat ba ci biir ni gis li nga xamante ni tamit daf leen doon lafal maanaam cat parce que daf leen doon chasser ci li ñuy naan les mauvais esprits ah. lépp loo xamante ne daal waaw les mauvais esprits donc dañ ko doon utiliser pour loolu donc il faut savoir que xol nag li ñuy wax ca ndorteel ba benn pëndëx la boo xamante ne mun nañ wax plomb wax nañ fan nañ koy jëlee euh, yaa sayda wax na dëkk bi ñu koy jëlee ni ñu koy defee nag dañ ko doon dëbb comme sànq besel mi ngi koy wax boo ci doon dëbb nag da ngay jël tuuti eau de di ko ci di ko ci mélange allongé comme doj la pour mu mun a nooy bu ñu demee ba am ci pëndëx lay ko weer ko nag di ko utiliser mm. mais bi ñuy demaatee ba nga xamante ne njëriñ yooyu Euh, am na ci ba nga xamante ne lépp loo xamante ne day faj bët et tout nit yi nag dem ba nga xamante ne léegi dañ ko industrialiser wala gën ko def mu law mhm. parce que nit yi tàmmuñu ko woon utiliser mhm. mooy indiwaat ci li ma waxoon ni que léegi ñëpp dinañ ko mën a utiliser lu dul tam xarit kese mhm. maanaam léegi dem nañ ba def ko ci li nga xamante ne moom moo di crayon yi soxna yi di utiliser saa ne dem nañ ba nga xamante ne mooy li professeur lu baax euh, wax léegi dañuy dañuy lu baax jël ko jéem ko soppi pour commercialiser voilà pour commercialiser xamante ne xamoon nañ ko ci bët non seulement day def taar ba pare jox la li nga xamante ne moo di protéger sa bët ñu dem nag ba def ko ci crayon yi léegi léeg-léeg crayon boo gis da ngay gis ñu bind ci xol à côté donc crayon boobu maanaam ci tusngal nañ ko defaree te am na njëriñ bu baax ci doomu aadama kon nag ñu di ko nit digal nit ñi même bu fekkee ne càggane dañ koy utiliser tout le temps korité waaye mun nañ jënd yu ne mel di ko utiliser saa su ne ndax dina leen bu authentique ak bu authentiqueul exactement am na ah. bi nga xamante ne dafa authentique comme d'habitude euh, boo demee ci marché yi bu fekkee ni kii mi ngi jege si nu mu tuddati tamxarit da ngay gis ay soxna yoo xamante ne dañuy jël ay mbuus yoo xamante ne di koy wecceekoo mhm. lu mel ni ñaar fukk wala léeg-léeg juróom fukk sax mais boobu nag du doon euh, euh, kii original bi dafa am lenn loo xamante ne dañ ko ci rax mhm. léegi nag day am nag naam sax tuuti tusngal mais du doon original bi donc de préférence nit yi dem nag voilà voilà <laughs> dañ ko dañ ko dañ ko transformer complètement ah. donc looloo tax nag léegi fi mu ne nii man daal la technique que je conseille mooy crayon yi nga xamante ne léegi ñu ngi koy utiliser nga xamante ne daal produit bi nga xamante ne moo di tusngal bi mhm. mu ngi ci biir oustaz boo demee boo dematee màkk indil ma indil ma tusngal euh, parce que def naa tusngal tusngalu màkk euh, mooy mooy original bi tusngalu original bi te ren boo demee moom faaw ma Ah, <laughs> maasal bi ma bàyyi ma kàttal sama bopp rek. maasal bi rek nañu dollil ci biir waaw. <laughs> aljuma yi aljuma yi ca màkk nga may woowee. waaw waaw waaw parce que maa ngi euh, nga may woo su ma demee Médine da nga may woo su damay taxaw ci watu Seydina Mouhamed nga woo ma. Eh waaw su ma demee ca Kaaba nga woo ma foofu. kon dina mel ni maa nga màkk. hélas Médine ndax Médine ngay àndal Médine caméraman euh, moom itam tubaarkàlla et puis euh, jël na soxna Médine di liggéey fii de caméraman bu mag ah. ñu koy ndokkeel ñaari yoon ci aj bi muy wàcc ak euh, soxna si mu jël mm. euh, man nag nax na ma ba euh, ba takk sama xarit quoi du ma leen wax kan la ah. ndax sama kër la ñëw nduxura kër Baye Seex jël fa kenn daal bon après je vous dirai quoi félicitations Médoune moom la aji màkk ak gi xam naa laataa ngay dem itam di nga ci indi ay ay ay ay waxtaan ah bu ko defee suñu xarit yi nga xam ne ñoo koy waajal mën a dem ci nu mu gënee ñu ngi ndokkeel nag suñu xarit yëpp ah léegi comme ñu ngi doon waxtaane yonent bi wax ci tusngal ak mado dañu bëri ay xarit yoo xam ne ñu ngi réagir Fatal Kouz mu ngi rafetlu euh, euh, sa teewaay ci émission bi ñu ngi koy ziar bu baax euh, ak bërëm këram fàtte fàttewuñu tam yaama Térésol ak suñu xarit yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ca Russie di ziar ambassade bu Sénégal ba fa ne monsieur et madame Diouf ñoom itam dañuy àndandoo ak ñun saa yu ñu xëyee Serigne Saliou Mbacké mu Alaaji Baara moom itam mu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi koy déggee di ko di sàkku ñaan ah. mm-hmm. ñu ngi koy ziar bu